Euh, jërëjëf mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi tey euh, fekk si nañ jëmm joo xamante ni a ngi nii waxul te pourtant bi muy mujjee wax benn wax la waxoon mooy Barthélémy Dias mooy nekk maire de Dakar boobu ba léegi gisaatuñu sëñ bi mu bàyyi ba jamono jii ñu encadré kër Sonko barricadré ko tëj ko deux ans ferme mu ne ma kaay ma génn leeral askan wi ndax bokkuma ak ñenn ñi ni ñuy doxee man dafa am xam-xam bu yàlla def ci man mbokk yi jëmm ju yéeme mi ngi nii jëmm ju doy waar mi ngi nii mbokk yi jëmm ji suufiyanke la. boo ko gisee sa xel dana dem ci lu bëree bëree bëree bëri sëriñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoo lay jaar. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wanu nasilu min alqurani ma wa shifa wa rahmatan lil mumin wala yasidu saalimina illa xashara waxaala aydan adduxooni astajib lakum mbokki julli di gannaaw ba ma sant yàlla tabaraka wa taala julli sa yonenteem bu tedd ba muhammadu rasulullahi salallahu taala alayhi ma leen di nuyu nuyu ba gën a muy nuyoo ba lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ bi euh, dama bëgg ñu waxtaanee lenn parce que daaw ci waxtu wi dafa am wax joo fi waxoon wax ji am nga ne ma dinaa génnaat mais tey fi nga génnee dafa tolleeg dafa tombeeg politique toll foo xamante ni ñenn ñi ne jaay doole moo am ci dëkk bi ñenn ñi ne déedéet justice mooy def liggéeyam yàlla suñu borom may na la ci wàllum seet. am na sëriñ su taxaw ne Sonko day nekk président 2024 am na ñu ne Sonko bokk mais en tant que borom xam-xam tey sa gis-gis ci réew mi ndax gis naa ne seet yàlla daf la cee may ak wàllum xaar mu mel ni bokk na ci li tax ma génn ndax daaw ci heure bii laa gëjoon a wax ba may wax it parti Lamine Diass laa waxaloon te ginnaaw bi dégg naa ci lu ne moo nekk ci ginnaawam moo koy ñaanalak moo tax lépp lu parti Lamine Diass nekk daal moo nekk ci ginnaawam booba léegi nag dañ naa si ay coono yu métti te yàlla xam ne ni li ëpp si coono yi fekkiwu ma ko benn yaakaar nañ ni kilifa gu jóge soow jëm si Touba sama kër la jëm te man kenn laa si askan wi si seen bëgg-bëgg rek laay topp ñaari at si ginnaaw mooy bi hôpital Mbour bi lakkee li xale yu baree bari faatu ñaareel bi buñ xoolee faj mi sooxe lool laa woowoon ay nit waxtaan ak ñoom uh-huh. ne leen tiit naa ñaari at yii di ñëw si suñ kanam si suñum réew uh-huh. nga xam ne lii xew nii tey uh-huh. ba ma si waxee man na ñaari at si ginnaaw ndax dañuy wax ne xale yu loro ak faj mu sooxe moo xam si gént nga ko gis moo xam réati réalité la heure bu xewee rek na nga xam ne nattu suñ borom mi ngi waaj a dal si fa mu xewee Moussa mii mook na keroog bañ ko géntalee uh-huh. dafa dajale woon boroom xam-xam yépp uh-huh. suñ njiit yi suñ borom daf leen a nattu ñu rëy uh-huh. seenu gént duñ ko firilu liñ leen géntal duñ ko laaj yuusufa buur ba ko yilifoon keroog ba mu géntee da ko woo fekk ko sa kaso ba firiloo ko gént ga yuusufa wax ko jéyee ji man a ñëw si am réewam mu programme ko wa fi saalikum balaaxun min rabbikum hashim dafa am yoo xam ne boo ko tàmbalee gis ci suñu réew rek mm-hmm. am natt la waaye natt yooyu lan moo tax suñ boroom di ko teg mm-hmm. am réew daanaka heure bu leen ko tegee mm-hmm. ñaari at yooyu bu jàllee da ngeen gis naataange da ngeen gis tawféex da ngeen gis taysiir moo tax Sénégal na seen xel dal kenn mënu koo tee naat donte dafa tàkk ba jeex tàkk xaw na maa tiit lool si suñu njiit ak ñi ko bëgg a wuutu ndax man ñaar yi dama koo xam xam naa ne am réew kenn du si ngoy moo tax euh, Macky Sall boo jeexalee bul force am réew kenn du ko fuqar ñi Ousmane Sonko bu jotagut bul force ndax ndaw ñi dañoo am si yow yaakaar te sama borom bu bëggee taw dëgg dëgg dëgg mm-hmm. du xiin am mbiram daf may fàttali lu baree bari su ma koy wax sax sama yaram dafay daw Ousseynou bi mu jógee màkk jëm Karbala gisutoon bàkkaar bu gën a rëy toog li tax ma génn loolu la gisuma bàkkaar bu gën a rëy ma génn wax ak sama réew ndax gis naa lu baree bari loo xam ne nii wuute na ak xaybu xam-xam rek uh-huh. foofu nag tubaab yi dañ ñu fee raw. Sénégal ñàkk tawféex. ak lor seen bopp. li leen ko yóbbee mooy sàggane xam-xam. moo xam-xam moo moo xam-xam-xamu tubaab la. moo xam-xam-xamu diine la. ba si xam-xam yi nga xam ne mooy mën a jariñ suñu réew xale yi nga xam ne ni seen waajur dañ leen di dugal sànq si seen dund gépp suñu pare ñu xamuta leen jiit jiite diine ji tey ñu si dàq wax lañuy wax xamuñ ko te sàgg ne xam-xam day nërmeel am réew day nërmeel société day alak ndawi réew boo xoolee daanaka ñii di dem si gaal gi téeméer yoo jël juróom ñett fukk yëpp ay cadre lañu ñii di garde naka noonu liggéey yi gën a suuf ña koy liggéey ñooy aji xam yi liggéey yi gën a kawe ña koy liggéey mën naa ni lañuy liggéey xamuñ sa dara te loolu lu doy waar doy waar la li may it ci sama réew mooy suñ boroom dafa mën a seetaan keroog bi nga xam ne Ousseynou génn di dem pourta ay saxaabaa ko doon dab uh-huh. wuuteeg moom gis-gis uh-huh. naan ko nga toog màkk moo ñu gënal uh-huh. dafa forcé daan fokk mu dem Karbala ngir jàkkaarloo jeeg mm, yësit keroog bi Ousmane Sonko euh, départ euh, Ziguinchor war a jëm si Dakar suñ borom def na si ndox mu sedd ndaxte ñi bëgg li ñu bëgg ba tey ñemewuñ def téewut keroog bi Ousmane àggee Karbala bi mu laajtee ñu ne ko fii mooy Karbala dane karbun wa balaaxun daan ne bërëb bu njàqare xam ne forcé amul njariñ ragal amul njariñ li am njariñ nag lépp looy def nga jiital si xel ak xalaat ndax loolu bokk na si lii toroxal am noonu am noonu kenn du affiché wu si kanam boo xamee li nga bëgg def loo ko ëpp ëpp doole mën na laa gàllankoor si ay pexeem Euh, sëñ bi bëgg naa nga dugg nag ci seet leeral ci askan ñu xam. mbirum biddiw. Mhm. suñ borom dafa tegtale. Mhm. ñu siy gëstu. Mhm. suñ bëggee jariñoo si suñu àdduna. ndaxte nit ki gannaaw bu defee li ko war. fii si kaw suuf. liñ teg ne moo ko mën a am moo ko mën a may mu am. liggéey la. te liggéey sabab la bu tax nit ki di def li ko war wante may wut alal de xam nga ne sart yi daje si nit ki mu doog a am alal liggéey mooy juróom-ñaareelu position bi liggéey mooy juróom position bi tubaab yi daanaka bi ñu xamee loolu di tegtaloo biddiw yi muy wàllum astronomie nga xam ne ni xam-xam bi nga xam ne si moom la nit ki war a jëfandikoo ngir tabax addunaam léegi da ngay gis mboolem xeeti sëriñ si dañ siy wax ko gis mu naan biddiw biddiw moo tax mm, nit ñi am naa si ñoom ñeewant ndax am na ñu baree baree baree baree baree bare jéeye ji ñu nekkee jaawale seen i biddiwa leen ko yóbbee am na ñoo xam ne jéeye ji ñu nekkee jaawale seen i tabeexa ko yóbbee ndax biddi boo gis ñaar la bu saaxir si ak bu baatin bi bu saaxir si moom nga dégg sëriñ si naan boo juddee weer sàngam ba weer sàngam sa biddiw euh, solaire la wala boo juddee weer sàngam ba weer sàngam sa biddiw horoscope la loolu wérul de naxam a biddiw la ab xam-xam la boo xam ne mooy jariñ nit ki si kaw suuf mhm. waaye si mbirum saaxir la koy jariñ mhm. xam-xam boobu moom lañuy ñuy xam ne mhm. ñoo ngi si noor kenn wërte ji soo bañee sam ji yàqu mm-hmm. xam-xam boobu si la ñuy sukkandiku xam ne ñoo ngi si nawet képp ku bëgg a saxle dangaa war a ji mm-hmm. xam boobu la ñuy sukkandiku xam ne guddi moo gën a dal mm-hmm. si lañu war a dallu xam-xam boo boobu la ñuy sukkandiku xam ne bëccëg gi xam eh, jëfandikoo googu ñuy jëfandikoo dafa nekk si kàttanu suñ borom fi mu waxee wajax naa layla wa nahaara aaya tey ni nga xam ne bu ko téewoon senn saa suuf si dara dootu ko wërati suuf si si jëmmi boppam moom du wërati jàndate bi nga xam ne bu boobaa réew yi nga xam ne suñu borom daf leen a natto mu fekk leen si guddi si guddi la ñuy nekk abadan réew yi nga xam ne nii si bëccëg la ñuy nekk si bëccëg la ñuy nekk abadan léegi xam-xam boobu bokkut ak xam-xam bi nga xam ne moom ngay soxla yow sëriñ bi hmm. ngir mën a génne biddiwu doomu aadama bi hmm. moo xam dafay soxla wërsëg nga defal ko ko hmm. moo xam dafay soxla wér yaram nga defal ko ko moo xam dafay soxla gudd fan nga defal ko ko muy xam-xam boobu xam boo am njariñ la dàquma ko nag ndaxte alxuraan tudd na ko te nit ñi buñ bëggee jariñoo seen àdduna tamit si la ñuy dellu waaye bokkut ak xam-xam bi nga xam ne nii mooy xam-xam liñ tuddee xaqiidatu rawxaaniya nga xam ne moom rek moo mën a jariñ nit ki moom rek moo mën a loor nit ki nit ñi seenu rawante mi ngi dellu si seeni burju ndaxte li suñ borom wax ne wala xadd karab na banni aadama wa amal naahum fil bari war bari war saq naa mina tayyibaati te faddal naahum ala kasiri mi man xalax naa tabdil loolu mu wax ni li mu bind doomu aadama mu si gënal xam nga lan moo la koy xamal doomu aadama rek la suñ borom bind boo jëlee turam ak tur waajuram xadat ko mu si sarxiya mu jàpp yenn tur suñ borom boo jëlee turu suñ borom booba adat ko si charxee mu jàpp benn biddiw biddiw booba nag ab doxam mooy doon dund doomu aadama bi mhm. léegi lan moo tax suñ borom ni mbooleem li ma bind doomu aadama ma si gënal te mhm. nga gis doomu aadama yoo xam ni bàyyi ma yi ñoo tane ak dund mhm. kon dund ga suñ borom di wax ak ngëneel ga suñ borom di wax fokk nga xam lan la doomu aadama kese kese la suñ borom may boo jëlee biddiwam xam bis ba muy jóg xam waxtu ba muy nga mën a xam lan mooy tabixaam muy ab delluwaayam muy natiiram gis nga sarax ba tabixa boobu di soxla bu ko nit koy xasee xam xam bis bi mu koy génne lu nit di am dana ko am bu fekkee wërsëg la am balaa dundaatum at lu nit di taxawal ci kaw suuf dana ko taxawal mhm. donte nag liggéeyut mhm. donte liggéeyut ndax liggéey def li la war la wantit uxuta am mhm. waaye gis nga mbir moomu bis boo ko xasee jaawaleel nit bu nekkoon milliardaire yaa ko ñàkkuloo bu nekkoon ki gën a tawat bu nekkoon ki gën a wér yaa ko tawatloo ah. bu bokkoon si aji guddi fan yi sax yaa gàttal aw fanam ah. xam nga lan moo tax nga gàttal aw fanam sarax boobu muy sarax yi di si dugal yéene ah. dafay lëndëmal biddiwam te biddiw heure bu tax yooyu juróom-ñaari fanu biddiw loolu mooy faatu doomu aadama yi moo tax ñu bare bari si boroom xam xam yi léeg nga yóbbul leen nit ñu ne la kii dafay faatu wala dafay wér waxuñ si xay bu de dañuy wax si xam-xam bu wér muy xam-xamu boobu kon fokk nit ñi teey si te moytu si rawatina sëriñ si mhm. incha allahu rabbi euh, ñu ñëw ci wàllum euh, faj am na xeetu jàngaro yoo xamante ni yaa ngi koy faj fii waaye yaa ngi koy fajal ñu nekk bitim réew bokk na ci cancer ak hépatique B ak euh, jigéen gu am problème mu am doom yi tamit yàlla am na doom la ci may nga am garab goo xamante ni daf koy saafara ba mu wér. cancer de foie moom dama siy dimbale nit ñi mhm. ndax dafay feebar boo xam ne daanaka ku dal. Mhm. bala nga koo xam mhm. man ngaa ñàkk lu ne mhm. fa nga koy xamee tamit doo am kàttanu faju nanga nga war a faja mhm. moo tax dañ si faral di defar ay garab di ko séddale nit ñi yi dañ koy yóbbu si hôpital yi yenn yi dañ koy joxe fii si kër gi donte garab gi xaw naa manqué beneen ba sa topp muy ABC képp koo xam ne nii dal na la moo xam mm, baxiyaat bi daa jàpp sa tànk wala mu jàpp sa loxo mhm. wala mu jàpp saw làmmiñ mhm. boo ñëwee si kër gi mhm. danañ ko saafara waaye fokk ñu déggoo si ba xam shaahir la wala baatin ndax feebar yi ngay gis yëpp feebar daa am shaahir am baatin baatin bi mooy waral nga gis doomu aadama bi bopp bi day metti garab ga borom xam yëpp dëppoo ne day faj bopp bi metti bu nit kooko naane bopp bi dafay gën a metti nga xam ne mën na saa jaare faatu waaye bi nga xam ne nii si laa gën a jublu muy ñi nga xam ne ni ay jigéen lañ mënuñoo am doom wala seenum njur taxaw ak nu mu man di dalee nit ki buñ si jëflantee ma saafara ko ndax kenn kese la suñ borom bind muy ki wërta am doom mooy ki nga xam ne dafa am tajliyaat te loolu daanaka téeméeri nit ñoo jël wala junni nit ñoo jël mm-hmm. kenn la say doon ñi nga xam ne nag mënuñoo am doom wala dañoo taxaw mhm. lu si bari mbirum sayaatin da koy def mhm. wala yeneen xeeti feebar yi mhm. wante daa amul feebar bu mën a dal nit si kaw suuf lu dul ne saytaan di daa jiitu si aw yaramam placé ko nit fenn rek lay looloo mooy liñ tuddee ay accident nga xam ne nii te yooyu sax li si ëpp jinne koy waral accident boo xam ne dara raxu si maam téeméeri accident yoo gis xamal ne benn la say doon nga xam ne ni bu fekkee ni mbirum am doom la wala mbirum mm, taxaw ñaari fan dong laa si liggéey. muy samedi ak dimanche. daanaka moo may bàyyi si biir réew mi moom may génne eh, biti réew tamit. maa ngi si sant yàlla bu baax a baax incha allahu rabbi. Euh, sëñ bi euh, bëggoon naa ñu waxtaanee euh, kaaraange nit ki la moo koy aar ba kenn du ko yàq ba kenn du mën ci moom dara parce que jamono ji yàq nit dafa xew. kaaraange tamit ñu ngi muccee si cat. ak làmmiñ mhm. yónnent bi moo waxoon ne. mujjug jamono sama xeet wi li ma siy tiit ñett ñu ngeen gis ñu looru ñaar ña cata ko yóbbee yónnent bi si jëmmi boppam moo ne su ma gisoon lu gën a gaaw ab dogal cat lay doon kan moo mucc si cat mooy ki nga xam ne fu mu toll ma ngi say doog ma say jéem a muslu cat topp na ñëpp man ak yéen ñi fi ñëw si bokk yam daanaka képp koo gis cat moo la gàllankoor yónnent bi wax na ne cat dana fekk lu waroon a toll ni giréem su ko jàppee ba bàyyi ko mu tool ñi sànqleeñ lim mën a yóbbi nit ki bari na lool waaye sabab yi nga xam ne ni mooy tax mu dal doomu aadama bi bokk na si yàgg si aw wanag uh-huh. di fa wax wala ngay dugg si wanag di fa duggee nu lay neexee uh-huh. moo tax yónnent bi tegoon na ñaan yoo xam ne nee na képp kuy dugg si wanag uh-huh. soo mënee jiita sa tànku càmmooñ wax allahuma inni a'uuzu bika minal xubusi wal xabaayis mhm. booy génn nga jiital sa tànk ndeyjoor mhm. wax xufraanak mhm. maa tudd wanak rek waaye lépp lu doomu aadama bi def rawatina ab jullit am na lu mu war a jiital loo xam ne ni bu ko defee suñ borom dana ko sa musal ba si wërsëg boo koy wuti am na ñaan yoo xam ne boo ko waxee wërsëg boobu kenn mënu la koo xañ insha allahu rabbi danga ko am loolu tamit nañ ko uh, fonk bu baax a baax xam ne ay jullit lañ mënuñoo topp lu dul si ndigali yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam sëñ bi dama gis nga nekk ci diggu àll bi yor fetal di jam picc mu ñuy wax Moussa Ndioubri te bëggoon naa xam Moussa Ndioubri moom ban sekkee moo ci nekk. Moussa Ndioubri am picc la moo xam ne nii. lasraar da koo tax a jóg. Mm-hmm. alxuraan saxal ko. Mm-hmm. dëggal ko mm-hmm. dëggalu xam-xamam. moo Moussa Ndioubri ba mu demee ba eh, saba ba ñëw. ba ko Souleymane tëg ko. dane ko bu ma gaawee. ndax xam naa. loo xamut muy picc moo xam ne nii bi nga xam ne dafa dee ba amul njariñ boo ko doon jëndi ni séria gii dañ la ko jaay lu ëpp trois cent mille muy jaaru yi nga dégg muy jaaro xaqiiqa si lañ koy liggéey génne nit këram abadan si lañ koy liggéey noob gi gën a gaaw si adduna bi nga xam ne buñ ko xasee def nit ki dootu mën a tàqali ko doomu aadama bi si lañ koy liggéey wante képp ku koy def bala nga koo def mhm. na nga xool sa diggante ki nga koy def mhm. ba xam siifur ba ban siifur la taxaw mhm. seetub sëy du ay rawxaan yu juboo da ngay dégg ñu takk ab sëy ngir rawxaan yu juróo yu juboo te siifur ba baaxut bañ a takk ab sëy ngir ngir rawxaan yu dëngoo te siifur ba baax yónnente bi dafa wax ne sëy dañ ko tënk si juróom-ñeenti mbir mu tàmbalee benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom-ñeent. Ah. nga xam ne nii maa ngi giñ si màggug sama borom bi. Ah. chiffre trois. Mhm. bépp sëy bu ko taxawee. bu ngeen doon ay milliardaire la balaa sëy baa tas da ngeen yalwaani. chiffre neuf bépp sëy bu ko taxawee. Ah. wallaahi wal képp ku fa sa dugg. balaa matum at danañ robi ku góor ko. noonu la chiffre sept dikkee taxaw ak lu mel ni chiffre deux ak lu mel ni chiffre huit nga xam ne moom balance la. ñaar ñi gën a ñàkk si àdduna buñ xooloon seen diggante uh-huh. moo tax wee siifur sett ñu takkante uh-huh. balaa at mee jeex suñ borom dana leen ubbil mboole màng si ni wërsëg yi uh-huh. nga xam ne lépp lu nit di am surtout alal a gudd fan daña daje si ñoom siifur de noonu la mel siifur cinq noon la mel huit rek moo xaw a mel ni ñoom wante huit balance la boo xam ne ni yaa koy sàmmal sa bopp ndax mën naa bon ba gën a yées waaye mën naa baax ba gën a gën loolu jotewut ak dara rawxaan mbirum rawxaan day dimbali nit ki si jëmmi boppam ndax rawxaan bi nga war a am war koo sàmm xam lay sara xam nga koy génne mu lay musal si adduna yow ku góor ki ni nga ko war a xoolee ku jigéen ki noon la ko war a xoole moo tax borom xam-xam bu ñuy xool ay rawxaan ñaar ñu war a ànd liggéey la wala ñaar ñoo xam ne nii dañoo bokk kër la wala ñaar ñoo xam ne dañoo war a ànd taxawal société la waaye kenn du ko xool si ab sëy ab sëy ñaari siifur yi siifur bi mën naa taxawee set rawaxaan bi di safara ak ndox chiffre bi mën naa taxawee neuf rawaan bi di safara ak ngelaw loolu jotewut ak dara ab sëy kenn du ko xool si rawaan si ay chiffre lañ koy xool lillahi wa rasuli mm-hmm. sëriñ saa ngi lor nit ñi ñi ngi tax nit ñi faatu mm-hmm. ñi ngi tax nit ñi ñàkk mm-hmm. ñi ngi tax nit ñi tawat ndax yi ay tegtal la yoo xam ne képp ku ko fi bàyyi boo doxee tuuti da nga gis loraange ji waaleykum salaam euh, gis naa tableau bi nga bind ci ay baat yoo xamante nii te bëggoon naa nga leeral ñu baat yee euh, euh, lan lay wane muy baat yi nga xam ne képp ku si delluwut mhm. munoo defal nit lu ko jariñ si wàllum lasaraar mhm. suñ borom moo jekk-jekk sàkk àdduna bi sàkk doomu aadama yi indi leen fi mhm. wax ne man yàlla maay borom asamaan ak suuf ak li si diggante bi amul wenn xob garab wu sañ a naaw te naawut si ndigalu suñ borom kon booy jëfandikoo xam-xam fokk nga delluwaat si suñ borom gis nga àdduna ñeenti xiblaa am olof di wax penku soowu salum gànnaar gis nga ñi eh, xibla gu ne baatu muhammad moo fa taxaw bañ na ko sax bu suñ borom bu mu koy leeral si alxuraan ñeenti yoon kese la ñëw ñeenti yoon yo ñeenti aay yi nga xam ne nii muhammad ñëw na si muhammad quatre-vingt-douze la boo ko siifuree maanaam aay yi mu ñëw seen baat yi njëkk boo ko dee chiffré 92 lay taxawee. aay euh, baat yi ñu jeexee tamit boo ko dee chiffré 90 lay taxawee. moo tax képp koo xam ne nii péegoo loolu. waaw yaa ñëpp a yem. boo gisee li tax sax ma xaw a génn leeral. Uh-huh. tur àgg na fu ne si adduna bi mhm. ñu baree bari di jëfandikoo si sama xam-xam mhm. am ñoo xam ne dem nañ bay askanoo sama wutur mhm. am ñoo xam ne ni dem nañ bay askanoo sama euh, listixaar bañu ma ko ndax xam-xam la bu suñ borom def si man ma yaatal ko loolu sama ndam la waaye képp koo xam ne nii dangaa jubloo jariñ doomu aadama yi la nga leen jar la leen di jariñe dafa war a doon lu leer ndax yow mi suñ bi xoola ma seetal la mu leeral na ma nañ ni sa biddiw a samsu la mi ngi jóg bisub altina waxtu yi sa gën a leer six di du la jàpp di sept heures si ngoon sa tabixa an naar la léegi sa sarax la sa gën lu tàng la mën nañ saa tànn sondeer léegi nga jël audio boobu nga xam ne yow laa ko seetal yaa ko tax a jóg boo tuddee Muhammad keneen déglu audio boobu jël ko dem seetal ko ku tudd Abdoulahi loru ko loolu moom maa ngi si bàyyi loo xel ñëpp képp koo xam ne ni déglu nga audio sama audio ñu yónnee la ko boo dégloo kàddu gay wax ak yow Mm-hmm. war ngaa am xelum xam ne kàddu gi ak gisi ojo bi moo bokk bis buñ sa bokkul rek du man am na ñoo xam ne dem nañ ba nga xam ne dañuy jëfandikoo samay whatsapp ak yëpp loolu moom maa ngi koy bàyyiloo xel yi ñëpp ñëpp mm-hmm. daaw si heure bii laa gëj a wax mm-hmm. daaw si heure bii laa gëj wax waaye damaa gisul bàkkaar bu gën a rëy toogaat bañ a wax ndax nit ñi ñi ngi réer te li ëpp si li leen léeral mooy mbirum xam-xam te loolu moom dañ see war a taxaw ndax àdduna bi buñ ko bëggee jagal fokk ñu delloo ko si xam-xam xam-xam bokk na ci ki nekk bitim réew euh, bëgg a ñibbisi mënta ñëw ndax kayit da koo jafe wan yoon moo gën a gaaw ci may nit ki kayit wala sax ku bëgg voyage yi bëgg visa. xam nga lépp loo xam ne doomu aadama bi def na ko nam ko war a defee. ëmu ko rek am na lu ko lay euh, yooyu sax bàyyi woon naa ko mooy yi nga xam ne daanaka nit ki bu ko defee réew mam ko def dafay tukki far force. Mhm. bu amul lum liggéeye dana feebar feebar buñ ko kettalee ngir mu dem bu amul paas buñ ko fa yóbboo hmm. dana daanu feebar boo xam ne réew moomu kesee koy mën a fa ñu ketal ko dem ndax loolu boo ko xasee def si hmm. tuuru doomu aadama bi def ko si tuuru réew moom bëgg dem hmm. talu dagan na nag li may wax mooy eh, li ñuy liggéey si suma sabi la yasaruhu muy ay yoon yu bare bari nga xam ne ñu bare bari dañuy dégg nga si wax ñu bëgg see wax rek tax ñu siy wax lu leen neex waaye ab xam-xam la boo xam ne nii daanaka boo ko xasoon ni nii kenn mënu laatee dem réew ma nga bëgg a dem réew moo man di nekk bëgg faa jóge ñibbi si sam réew buñ ko fa defee kenn mëntatee ba si buñ ko defee balaa wér waa génn da nga jóge réew ma nga nekk bëgg a ñëw si réew mi réew mi nga nekk incha allahu rabbi léegi nag bu fekkee ne li nga xam ne nii dafa jëm si ay kayit moo xam kayitu nationalité la moo xam kayitu séjour la moo xam green carte la moo xam carte bu man di doon heure bu at mi tàmbalee wane naa sarax boo xam ni nit ki bu ko defee kenn mënu ko koo tee am biddiw yi nga xam ne nii léeg-léeg day jariñ doomu aadama yëpp suur yooyu heure bu accès mhm. leeral naa ko mhm. waaye li ëpp si li may leeral mhm. ñu bare bari dañ koy jël bind ko wax ko ba mokkal toogaat ko di ko jéem a leeral te nañ koy leeralee mën naa bañ a dëppoog na ma ko leeralee woon mhm. bis ba ma si waxoon mën naa bañ a dëppoog bis bañ si wax mhm. sarax ba ma si waxoon mën naa bañ a dëppoog sarax bañ bëgg digle nga xam ne yooyu yëpp ay loraange yoo xam ne dafay lor askan wi te loolu lu jara moytu la mhm. insha allahu rabbi bàyyi la sëriñ bi nga tàggatoog askan wi lay suivre ci MPROD TV maa ngi leen di bu baax a baax a baax a baax si géej gi leeral xam-xam ndaxte lenn li su la ko suñ borom cëralee waroo di si géej a wax wante euh, li euh, bu mag ba waxoon rek laay wax euh, daan ni réew moo xam ne ni gone yi dañoo taxaw pour yàq mag ñi taxaw pour yàq boo fa jéemee defar yaa ngi sonal seen sa bopp waaye ñuy sonn ak ñuy jariñoo si yem mënuñoo fexe ba mbir mi du jege waat si xam-xam du jege waat si xam-xam incha allahu rabbi ay ci mbokk yi ngeen li sëriñ bi waxtaanee tey waxtaan wu bëri njariñ la waaye waxtaan wu am solo la Euh, gëjoon ngeen ko gis nag waaye namoon ngeen jëmmam ji mais mu fatoo nekkoon ci ay liggéey gis ngeen ba liggéey ba jeexee génnaat na leeral askan wi ci li mu nekkoon borom xam-xam la te kilifa gu yàlla ah, may la ci wàllum ñaan yàlla mbokk yi numéro yaa ngi doon képp ku ko ci woo rek di nga ko jot yéen ñi ñu topp di ñu suivre ci improtive yi yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jeey Muhammad Rasulullah